asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk àdduna mbokk internet rawat na waa alxaybu tv ñu ngi leen nuyu di leen ziara baax di leen baalu xaq te di leen baal te ñaanal buur boo ñu baal sàmmal boppam aaral ñi boppam mosul ñu ak ndog yàlla def ñu dëgg dëgg def ñu dëgg ay taalibe ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara bu baax a baax euh, di leen ndokkeel bu baax tamit te di ñaan yàlla mbas mi nga xam moo nekk ci àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jële ñi nga xam ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan yàlla xar leen àjjana ñi ci tawat mi yàlla saafara leen ak fépp faay mën a tawat ak bépp tawat bu mu mënta doon ci àdduna rek yàlla saafara ko ah, ñi nga xam tamit ñoo tëdd ci lal hôpital yëpp yàlla saafara leen ak ñi koy doxaale ñëpp ñi nekk ci prison yi tamit yàlla sutura leen jàppale leen baax sàmm leen te génne leen ci jàmm ba ñu dellu seen njaboot dellu ci population bi def luy jëriñ diine ak lu jëriñ njaboot gi incha allah ci lu baax. Ah, incha allah ci lu baax ci lu baax incha allah dëkk yi nga xam ne ñoo fi am problème yëpp yàlla fi dala ci jàmm bu baax a baax di leen di amaan mbégte bu baax a baax di ñëwaat toujours di leen présenter suñu émission bi nga xam ni njëriñ kese la waaw ñu ngi ci toujours diggante dénkaane baay ak doom tey nag comme ni ñu koy waxee à chaque fois. Euh, ñuy gën a góor gën a góorgóorlu ci côté ñaari euh, fànn yëpp di bàyyi ak euh, soxna wala di borom kër ak soxna rawat na soxna ah nay gën a góorgóorlu rek di jàpp li nga xam ne moom la ko yàlla dénk wala boog li nga xam ne moom la yàlla boole dénk muy ko côté ku góor gi di côté ku jigéen gi dëgg la góor moo yilif jigéen yow jigéen boo xamee loolu rek doo sonn boo jàppee ni kii nga xam moom lañ ma moom la ma yàlla boole dénk ma ko mooy sama baay mooy sama grand frère mooy sama kilifa boo amee dimension yu ëpp yooyu sax moom la ndax euh, mbagg yi ko yàlla jox la su ko defee doo sonn ci dara jigéen nag bokk na ci nga góorgóorlu foo toll di doylu te di muñ lu neex di muñ lu metti di sàmboo sa bopp bu baax a baax di sàmboo sa bopp bu baax a baax su ko defee ne di nga mën a mucc ci lu bëri gàtt tànk gàtt wax gàtt làmmiñ waaw dafa amoon euh, benn ndaw boo xam ne doon dem di war a sëy baay bi ne ko doom sama bis bu yàlla defee nga dem sëy ji sa kër borom kër naka ngay comporté woo fa boo fa demee bu fa nekkee mun ko ah baay xanaa li ma wax ma li ma wax ma li ma digal ma def li ma tere ma bàyyi mun ko kon mun koo sëy kon ñu ngi jàpp ci sëy du question ko dëkk lu ma digal ma def lu ma tere ma bàyyi am na leneen lu nekk ci ginnaawam te chaque jour da nga war di jàng di gëstu waaw rawat na ñi nga waaye yaay yi nga xam ne ak waajur yi nga xam ne ñooy joxe seen seen doom tamit ah, di wax li ñuy wax baatu ndayale ngeen xool baax ki nga xam ne moom ngay ndayale sa doom parce que ñun ndayale dañuy jàpp ne mooy ki nga xam ne sa doom buy sëy rek jël bool jox ko wala paan ak affaire orkatu foofu daanañ jamono yu mag ya wala jamono yu jiitu ci kaw bu baatu ndeyale lu ñu ko daan defee mooy te dañuy xool diw mii dafa war a sëyi ñu xool ci koñ ba mbaa ñu xool jigéen gu baax koo xam ne ku mën a sëy la exemplaire la royukaay la nekk ci koñ ba di sëy wala nekk ci ba nekk fa ku tedd ñu jël seen doom dem ndeyale ko kooku ndax xam nañ seen doom ji waaj mu waaj a sëyi léegi dañuy dem jël ko ndeyale ko kooku nekk diw ka lañ la ndeyale demal nga toog ci moom su ko defee moom day dem toog fa xool ni kooku di comporte ak di doxalee mu fexee roy ci tànkam fexee góorgóorlu ci moom su fekkee kooku jàppale ko waaye léegi nag bu ñu leen dayale rek mooy booy dem yaakaar nañ war nañu jox ay booli bëri ak ak lu ajo aajo comme ñu Sénégal ñu koy defee. fekk fekk ndu foofu xëy na jël suñu problème yëpp wékk ko ci mit ci matériel wala ñu jël ko ci objet bi nga xam ni à chaque fois moom lañu yaakaar ne mooy sëy kese ñu baal ma te fekk or loolu loolu kese du sëy mooy néeg ba lal ba rek. am na lu jiit loolu am na am na am na moo tax ñuy soxna yi nañuy góorgóorlu baax borom kër tamit euh, góor ñi tamit ni ñuy comprendre soxna yi te di leen nongu di muñal nañuy comprendre soxna yi te di leen nongu di muñal kenn werantewul ni yow buñ ne la fii yaa fi nekk yaa yilif kii sa soxna la euh, da ngay am da ngay dawal compréhension du ko yërëm ci lu bëri parce que yàlla moo ñu ëpp doole moo ñu moom mooñu mooñu mooñu te def ñaa daf ñuy suturaal fu ñu tool di ñuy yërëm kon bu weesoo loolu yow mii nit rot na yow di góor boo jàpp ni chaque jour ma def erreur mbaa ma def nag suñu noonu wala ma tooñ te mu jéggal ma di di jëllale man góor war naa kon di tollale di jéggal di jëllale tey nangoo di muñ di muñul di muñ di muñulaat di jégg di jéggale di jëllale ndax olof dafa danaa ku miin sa wax la kon na ñuy bàyyi xel bu baax a baax côté yooyu baay bi di waxtaan ak doom ji di ko dénk di ko dénk naan doom sama maa ngi góorgóorlu si yow fu ma toll di la dénk du dara lu dul bugg foo nekk fu nekk euh, ñu jël ci yow royukaay foo nekk fu nekk ñu xam ni kat yow macha allah yar nañ la fu ñu la war a yare parce que doomu aadama rawat ni ku ñuul rawat na sénégalais dafay tàmm yow kon moo la jur yow de doom kan mooy sa baay kan mooy sa waajur ah yow de doom macha allah yar nañ la yow de doom yow de doom bu fekkee nag meloo ni nga war a mel nag dafay dafay doy waar moo tax doom sama may sonn ci yow chaque jour ngir di la tete ngir di la gunge ngir di la miinloo àdduna ngir di la miinloo kër ngir di la miinloo responsable ëllëg boo ci tollee nga xam ni nga war a doxalee sa kër ngir nu ngir nga mën a doxal kër ngir nga mën a doxal àdduna ngir nga mën a doxal parce que nit bi yaruwul mën na yor àdduna ak lu ci biir waaye boo yaruwul li tax li war a doxal dëgg doo ko mën a yor wala boo ko yoree tamit doo xam nu nga koy doxalee waaw moo tax parents yi ñuy sonn bu baax di yar doom yi dinay métti nag parce que ñu toog ci as boo xam ne day métti pour nga yar leen mais dañu il faut naxante ak di jéem rek mooy waral li ni met ngir li nga li ñu bëgg nga mun mun sa am nee ko doom sama nga góor góorgóorlu parce que li ma lay wax xelal nii yëpp tey mënugoo xam njariñ bi waaye bis dina ñëw boo demee ba gisatoo ma gisatoo kenn ki nga xam moo la war a wax tegal fi sànq tegal fi sànq defal li defal laa di nga xam boobaa li ma la wax nii yëpp lu tax ma la may son di la ko wax sama jamono ci biir yi jàll waxoon naa leen ni ki nga bëgg ëllëg mu doon dara da nga koy préparé ki nga bëgg doon ëllëg ki nga bëgg ëllëg mu doon dara da koy préparé bàyyi ji loolu la xam moo tax chaque jour muy sonn di sax doom ji ak di ko wan fi ngay teg sa ak di ko wan ni ngay def ni ngay def ni ngay def ni ngay def bokk na ci moo tax mu ko jubaloon ci yee paas ay dëkk di ko jubal chaque jour naa ko doom ni ngay defee doom ni ngay ni ngay waxee doom ni ngay kiiwee nee na ko na doom sama na góor góorlu ba ni nga ma joxee cër man mii sa baay ba su may wax ak yow doo sigg sa xool ma na nga góorlu ba képp ku képp ku maase ak man mbaa képp koo xam njort nga ni euh, tolloo nañ nga jox ko cër boobu jox képp koo gis rek jox ko cëru baay waaye tamit képp koo gis mu tollook sa ndey mbaa mu maaseeg sa ndey jox ko cëru ndey képp koo gis ni tolloo nag gis nga ni yaa ko mag gis ni moo mag jox ko cëru mag képp koo xam ne yaa gis nga ni mag bul ko xeeb jox ko cëru ndaw te nga respecté ko bàyyi ko xel doom sama na góor góorgóorlu bu baax dëgg la nag yii jamono guñ toll yi dafa am mbir yi nga xam ne mooy doxal àdduna waaye boo muy alal waaye boo amee alal te amoo xel euh, nekk nga ko xamadi alal boobu doo xam valeur bi war ndax nit dina bëgg dina nit dina la sopp wala mu faan la dalay leen nag ma la sopp dalay sopp ci leen baa mu faan la ci leen ngir alal bi nga yor waaye du la naw du naw sa jikko ndax yoroo jikko ju baax ngir danga li olof di wax tegg ndawan waaye doom bu fekkee dangaa góorgóorlu ba lii ma sax mooy nga fonk mag déglu fonk bàyyi fonk mag fonk ndey bàyyi xel ndaw boo ko defee de loo yor dina barkeel te foo waxee ñu déglu la foo toogee ñu bàyyi la xel foo jóge ñu ne ah kon du ma nekkoon noonu kon doom sama nga góorlu soo bëggee lu ñuy def di la ci boole mbaa lu ñuy def ne nañ xaar diw wala lu ñuy def nañu kii nañu ne diw ah diwkat da ngay góorgóorlu ci lool ndax lii nga xam ne mooy alal boo ko yoroon tamit boo ko yoree tamit yaakaar ne mooy àdduna ba gàcce ba gàcce euh, dab la di nga xam ne alal boobu du gàcc alal di nga xam ne alal alal alal turu alal rek ndax alal doom sama dañ naan alal euh, alal dina faj gàcc ñu bëri la wax alal dina faj gàcc alal du faj gàcce de mun na faj nag diw yore ko alal wala diw yore nga lii ñu jël alal boobu mu remplacer ko fajee ko loolu waaye gàcce rek moo ko mën a faj. moo ko mën a remplacer muy njub ak doylu kon sama doom na góor góorgóorlu ci àdduna loo munta am loo munta mel ak noo munta tool na nga góorgóorlu sa àdduna foo munta nekk nga saxoo njub ak doylu ci benn borom xam-xam mooy faral di wax baat ba baat yooyu su ko defee comme ni nga ko defoon la fois passée rek ñu bokk ak ñu ànd ak ñu ñëpp dégluwaat euh, kàddu kilifa googu rek incha allah rabbuna moo tax ku ne alal gàcce lay faj xamoo ne xew. njub ak doylu mooy faj gàcce bari na ko alal génn ci gàcce génn dese gàcce na ko alal génne ci gàcce ka ca gàcce génn dese gàcce gi njub ak doylu mooy faj gàcce waaye du alal lay faj gàcce macha allah mbokk yi comme ni ko déglu rek yal na yàlla guddal fanam moom sëñ Habib di ko ñaan yàlla barke ko baax ba mu sut maam ya ay fan incha allah te dundam nekk njariñ yo li ñi nga xam moom la ñuy ba ba léegi di ko déglu tamit yàlla na nekk uh, njariñ ci ñun ñëpp incha allah na waaye nag yii uh, pour mun a am doom ju baax pour nga mun ko am wala nga mun a am doom joo xam ni ñu koy bàyyi xel fu mu toll waajur yi ñoo koy sàkku ci ñoom yow yow surtout na yow mi góor yaay fexeel tu utal sa doom sa yaay sa doom doom yaay ju baax utoo ko yaay ju baax utal ko dëkkwaay bu baax utal ko utal ko ndax moom bu bu ci yàlla defee doom bénéfice la ci bu ci aajoo ba am ci moom tamit bu juddoo rek day baax ndax baat arab na inna tibaa tasruhu tibaa waaw bu ko fee nag xale boobu juddoo noonu rek la noonu rek lay mën di mel incha allah su ko fee dañuy yemante ki génn fii ba beneen yoon ñu gën a bu ñu gën a yaatal indi leneen rek incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh